أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته semaine passée ñu ngi jéemoon doon góorgóorlu ci ihdina siraat al mustaqim tey ci kàttanu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi jël siraat alladina an'amta alayhim aaya bi muy siraat alladina an'amta alayhim dafa leeral aaya bi nekk ci kaw bi ko passé semaine bi moom lay leeral ginnaaw ba jullit bi sàkkoo ci borom bi tabaraka wa taala ne ko ihdina siraatal mustaqim yàlla maa ngi lay ñaan nga jubal ma ci yoon wi jub yoon wi nga xam ne mooy yoon wi nga gërëm te mooy yoonu aljanna léegi nag mu koy définir mu ne mooy siraata yoon alladina gaañ a nga xam ne an'amta alayhim xéewalal nga leen defalal nga leen ay xéewal te yàlla maa ngi lay ñaan nga jaaral ma ci yoonu gaañ yi nga xam ne sotti nga sëmbërtal nga xéewal nga ay xéewal yu dul jeex ci ñoom mooy yoon wi nga xam ne gaa yi nga xam ne defal nga leen ay xéewal ci ay yonent ak ñu dëggu ak ñu ñu rey ci yoonu yàlla ak ñu baax ñi yoon woowu la ab julit sàkku ci borom bi tabaraka wa taala mu teg ko yaay Aysa ne dégg naa yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam di jàmbat ci sukuraatul mawt ci sukuraat bi nga xam ne ci lañu ngëbe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la faatoo ne yonent bi ya Aïcha ne dégg naa ko mu naan ma alladina an'ama allahu alayhim ma yëg ne bi ma déggee mu naan ma alladina an'ama allahu alayhim ma yëg ne dañ koy tànnuloo dañ koy tànnuloo moom yonent yàlla muhammad ñan la bëgg a nekkal mu naan ma alladina ànd ak gaañ nga xam ne yow yàlla an'ama allahu alayhim defaloon nga leen ay xéewal min annabiyina wa siddiqina wa suhada wa salihin ndeysaan kon yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam bi ko faatu dikkale yàlla da koo tànnloo ñan nga bëgg nekkal mu naan ko yonent yi ak gaa yu baax yi ak ñi xare woon ci yoonu yàlla ba faatu ak nit ñu baax ñi man yow yàlla tabaraka wa taala ñooñu laa bëgg nekkal yaay Aïcha ne na ma comprendre ci bi muy wax loolu dañ koy tànnloo mu daal di wax lii mu wax mu ne fa alimtu annahu xuyira ma xam ne dañ koy tànnloo mbokk yi lii nga xam ne moom mooy alladina anama allahu alayhim gaa yi nga xam ne yàlla defal na leen ay xéewal yaay Aïcha ba tey mooy nettali am na benn waay bu ñëw ci yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam ne ko yonent bi day man yaa ma gënal sama bopp dama laa bëgg ba yaa ma gënal sama bopp waxuma la yaa ma gënal sama bopp waaye sama waa kër sax ci bëgg bi ma la bëgg yow yonent bi yaa ma gënal sama waa kër bu ma nekkee ak yow damay fees del ak iman mais bu ma delloo sama kër sama njaboot ak sama doom yi rek sama iman bi daal di rës te yow yonent bi man mii xam naa ne day maa ngi ñaan yàlla du ko àjjana de waaye ni ma la bëggee man moom xam naa ne yow moom àjjana nga jëm sikki sàkkoowu ma ci waaye man mi même bu fekkee dinaa dugg xam naa ne bon du ma bokk ak yow kër te man mi mënumaa toog nag mënuma laa gis wax dëgg yàlla moo tax chaque jour rek ma daw sama kër rek ñëw jàkkaarloog yow pour gis la allahu akbar moo tax ñooñu mënuñu buuxanteeg ñoom bunti aljanna ñooñu yàlla wax xayru naas ñooñu ne ñooñu yaroo ci yoxo yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam lu tax parce que ñoom dañoo dañoo def dañoo defantuwul defantuwuñu maanaam bëggantuwuñu jaamantuwuñu lu nekk rek dañoo dem ba jeex xam nga loolu gars yi naan dem ba ngeer ñoom dañoo dem ba ngeer ba jeex tak xoolal ki ne yonent bi li ma wóor mooy yaa ma gënal sama bopp fii lan nga dégg ñuy way sama bopp ma leen gënal man nga dégg fii ñuy way kii nag dana yonent bi yaa ma gënal sama bopp sama waa kër sax yaa ma leen gënal man mënumaa toog sama kër ñaari minutes yu ma la gisul moo tax may vaillé vient rek ndax bëgg laa gis rek chaque jour sama bër bi di tegu ci yow te man yonent bi xam naa ne même bu ma duggee aljanna du ma dëkk ak yow te man nag wax dëgg yàlla àjjana joo xam ne dama fay nekk du ma la gis allahu akbar yonent bi tontu bu ko dudul aaya bi daal di wàcc wa man yuti illaha wa rasulahu fa ulaika ma alladina an'ama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqina wa suhadaa wa salihin yàlla mu ne wa xasuna ulaika rafiqa yàlla mu ne képp ku topp yàlla képp ku topp yonent bi xam nga lu la yàlla di fay mbokk est-ce que xam ngeen lan mooy njëriñu ku topp yàlla ak yonent topp yàlla ak yonent bu doon garab xam ngeen nit ban firiw yi la ci wit yàlla fayee la yonent yi ngay àndal yonent yi fa ulaika ma alladina an'ama allahu alayhim min man mu ne min annabiyin xoola yoon woowu la jullit bi di définiral yàlla fii ci siraat alladina an'amta alayhim yow yàlla yal nag ma boole ci yoonu gaa yi nga xam ne waxuma la da nga leen may ay xéewal mais ay yonente lañ est-ce que fii ñu toog kenn ci ñun mën naa am xarit bu gën yonente yàlla Muusa mën nga am xarit bu gën Yusuf mën ngaa xarit am xarit bu gën Ibrahim mën ngaa am xarit bu gën noox ñooñu ngay ñaan yàlla yàlla boole la yonent tontuwul waa ji lu dul aaya bi dafa wàcc ndeysaan yonent bi daal di koy wax waa ji waa ji kontaan daal di bég borom bi tabaraka wa taala mu ne ci yow yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ci gaa yooyu nga xam ne ñooy yonent yi nabiyin wa siddiqin ak ñu dëgg ñoom abu bakrin saddiq gaa yu dëgguwun yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma ak ñooñu wa shuhada ak ñoom hamza est-ce que waxuma sax même bu fekkoon ne sax jullit bi ñaanul yàlla yàlla boole ko ci yoonu yonent yi mu ñaan yàlla yàlla boole ko ak yoonu sahaaba yi rek ñoom abu bakr est-ce que ñooñu doyu ñu xarit est-ce que mën nga am xarit tey fii ci Sénégal ku tolloog Abu Bakrin Saddiq yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bu ñu jëloon imaanu xeet bi teg ci palaat jël imaanu Abu Bakar teg ci palaat mu ne Abu Bakrin Saddiq dana leen ëpp imaan dana leen gën a diis waaw fekk moom yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam dem na bu ñu jëloon xeet bi umma al islamiya ñu teg ci palaat ñu jël imaanu Abu Bakar teg yonent bi nee na imaanu Abu Bakar dina leen daaneel kon kan mooy Abu Bakar waa ji nga xam ne moo dëggaloon yonent bi ba ñëpp weddee ah Abubakar yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu salaam nee na ko Abubakar mu ne la bayk mu ne yow di nga dugg aljanna ci ashara mubassirina bil janna Abubakar ci la bokk kooku mu nekk sa xarit est-ce que mën nga am xarit bu raw kooku Abubakar Sadiq yemuñu foofu mu ne wa shuhada ñi ñu rey ci yoonu yàlla ñoom Hamza ñoom Musab ibnu Umayr ah ñoom Jaafaru Tayyaar nekk say àndandoo yemu ci loolu mu ne wa saalihiin ak nit ñu baax ñi ñoom imaamu Malik ñoom Abu Hanifa ñoom ñu baax ñi ba àddina bi di jeex yow yàlla tabaraka wa taala maa ngi lay ñaan nga jaaral ma ci yoonu gaa yu baax yi ba julit bi ñaanee ne ko yàlla teg ma ci yoon wi ihdina siraatal mustaqim dafa définir yoon wi nag da ko leeral ban yoon mu ne siraatal ladina an'amta alayhim yoonu gaa yi nga xam ne defal nga leen ay xéewal dafa leeral yoon wi yoon wi gën a leer yoonu nit ñu baax ñooñu wa kullu man an'ama allahu alayhi alayhim ci ñépp ñi nga xam ne yàlla tabaraka wa taala defal na leen iman dafal na leen xéewal bil imaani bihi taala yàlla may leen ñu gëm yàlla xoolal jullit bi mi ngi sàkku yàlla tabaraka wa taala yàlla baaxe ko jaaral ko fexe ba mu jaar ci yoonu gaa yooyu nga xam ne yàlla may na leen dafal na leen ay xéewal waaye yàlla baaxee na leen ngëm ba ñu gëm ko kon li ñu li ñu waxoon ne fatiha moo ëpp doole ci alxuraan gis ngeen ni muy dëggoo ñu ne alquran yépp mu ngi tënku ci fatiha xoolal benn aaya bii rek waaye yemu ci mu ne ba leen yàlla mayee xéewal yàlla may leen ngëm waaye yàlla da leen a may ñu xam ko moom ba moom yàlla tabaraka wa taala te lii lu yombul nit ñi ñi ngi rawante chaque jour ci ngëm yàlla ak xam yàlla tey da ngay dégg ci Sénégal bu ñu nee xam yàlla ay nit jóg ne ñoom yegg nañ yegg xam nañ yàlla yow xam nga yàlla ñu ne déedéet yow man xaw ma yàlla wala mu ne xam naa yàlla kay nan la xamee yàlla soo ko ne lii lan la mu ne lii yàlla la nga ne ko yow mu ne la man yàlla laa nga ne ko sijaada bi mu ne yàlla la nga ne ko loo ko won mu ne la loolu mooy yàlla ñu ne ko yow xam nga yàlla yow yegg nga est-ce que noonu la ñuy xamee yàlla loolu la ñuy xamee yàlla déedéet xam yàlla balaa nit di ko def foo mu am xel foo mu am pas-pas bu aju ci yàlla pas-pas foog pas-pasam leer baax mu doog a xam yàlla moo tax boroom xam-xam yi ñu ne laa aqida illa bil aql munoo am pas-pas bu wér bu sell bu set lu danga am xel diina ji moo ne ñu laa diinu liman laa aqla la ku amul diine ku amul xel mënoo am diine moo tax diine ji ku daf ku wératul bokkatul laa aqida illa bil aqli wala al aql illa bil iman nit mënul am xel te amul iman saa yoo gisee borom xel rek day am iman mel ni misaal bu ndaw ci borom xel yi seet yépp dañoo am iman yonent yàlla Moussa bi ko yàlla woowee tuuri Siina yàlla ne ko sànnil yat wi lu nekk sa loxo mu ne yat définir na ko ba mu leer wa maa tilka bi yaminika yaa Moussa lu mu wax lan la tontu qaala hiya asaaya lii sama war la dama ci sukkandiku kon leer na définir na ko lan nga yore mu ne yat Allah mu ne sànni ko mu sànni yat bi mu nekk jaan Allah mu ne yaa Moussa yow Moussa xuzha wala taxaf téye ko dama leen di laaj xel nangu na nga jàpp jaan ak sa loxo parce que xel nangu na ko lii lan la mu ne yat mu sànni ko mu nekk jaan mu ne ko téye ko est-ce que xel nangu na ko xel nangu na ñu ne la jàppal jaan ji ak sa loxo mais lan la Moussa utilisé iman iman lu tax mu utiliser iman parce que yàlla moo ko ne téye ko yat la woon ki ko def yat ki ko def jaan xam na ne bu ko ne téye ko war na ko téye moo tax hésité wul mu ne ko nattee mu daal di delluwaat nekk jaan sanuiduha sirataha al ula mu daal di koy delluwaat mu nekk yem kon la aqida illa bil aql wala al aql illa bil iman waaye wala al iman illa bil maarifa nit mënul am iman lu dul dafa am xam-xam moo tax borom bi tabaraka wa taala ba muy wax ñi ko seede da cee boole borom xam-xam yi shahida allah annahu la ilaha illa hu wa wa wa walmalaika wa ulul ilmi qaiman bi qis dañoo am maarifa ulul ilmi waaye ñan qaiman bil qis borom xam-xam yi nga xam ne dañoo taxaw ci maandute ñoo seede ne yàlla am na lu tax parce que dañoo am xam-xam moo tax ñu ne wala al iman illa bil maarifa gis nga lu tax stade bi fees maarifa moo fa amul ñi am maarifa yëpp doo leen fekk ci stade li tax soirée yi di fees maarifa moo fa amul ñi am maarifa yëpp doo leen fekk ci ay soirée waaye fan la ñuy amee maarifa mu ne wala al maarifa illa bil quran wa man arafa quran arafa rabba ci alquran kon la ñuy xamee yàlla kon ku jàngul alquran mënoo xam yàlla Sénégal nag tey dañoo am ñu xam yàlla te jànguñu alquran kenn mënu cee tari dari dara ba pare bëgg xam na yàlla wallahi juz bi njëkk ci alquran mokkuluñu ko mais da ngay gis ñu ne xam na yàlla da ngay gis ku kiris karas tubéyam mu ne xam na yàlla yegg na bu yàgg foofu la catastrophe bi nekkee wala al maarifa illa bil quran nit mënul xam yàlla lu dul dafa jàng alquran bi waaw ku xam alquran nag wa man arafa quran arafa rabba ku xam alquran rek xam boromam ku xam alquran koo gis xam na yàlla tabaraka wa taala wa man arafa rabba daa ilayhi ku xam yàlla dootoo noppi da ngay woon nit ñi jëme leen ci yàlla wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin borom bi ne kan moo gën a rafeti wax waa ji nga xam ne dafa woo nit ñi jëme leen ci yàlla waaye ba pare mu boole nit ñi mu boole boppam ci julli ci kon yàlla maa ngi lay ñaan nga boole ma siraata yoon alladina gaa ñi nga xam ne anamta alayhim defal nga leen xéewul ñu xam la ñu xam la xam goo xam ne xamu bëgg la xam giñ la xam daf leen jural yow yàlla ñu bëgg la ba yow yaa leen gën a lu ñu amati ci àdduna gis nga jullit bu xamee yàlla dëgg day bëgg yàlla soo bëggee yàlla da ngay taxaw di ko jaamu guddi ak bëccëg lépp lu yàlla bëgg da nga koy def lu yàlla sib lu yàlla tere da nga koy bàyyi kon bëgg lu muy war lu muy jural mooy cofee soo xamee yàlla bëgg ko soo ko bëggee sopp ko taxaw ci guddi ak bëccëg lu mu la sant ki bëgg yàlla moo tax dootul nelaw fajar dootul nelaw guddi bu fajar jotee nga gis ko mu yeewu bu koor jotee nga gis ko mu koor chaque jour day daw ci lu yàlla tabaraka wa taala bëgg gis nga xam yàlla kon lu mu lay jural mooy nga bëgg ko soo ko bëggee na ngay taxaw di daw ci ay santaaneem waaye ngay moytu ay tereem jigéen ji bëgg jëkkëram bëgg jëkkër ji torop lu muy def est-ce que dina def lu ko métti day taxaw ci service su jëkkër ji ah patron booy bi nga xam ne dafa bëgg patron ci lu muy nekk guddi ak bëccëg day daw ci ginnaaw service su patron bi léeg-léeg sax day dem ba xoolal gars yi nga xam ne fi dañoo bëgg seen sëriñ rek wa min annaasi man yattaxis min duni illahi andaadan yuhibbunahum yuhibbunahum ka hubbillah xoolal parce que dañoo bëgg keneen ku dul yàlla jàpp nit bëgg ko lu raw ni nga bëgg yàlla soo gisee di yuuxu di joxe ah inna lillahi wa inna am na ñoo xam dañuy gis benn waykat rek waykat ñu daal di dee musoon naa dem Tamba benn conférence bu ma fa am bi ma fay dem maa ngi fa fekk benn mbir mu doy waar benn woykat ci woykatu Dakar yi moo fa doon ñëw war fa def soirée am benn xale bu jigéen boo xam ne papaam def koo teree dem mu dem naan poson dee fekk na la dafa xaru mun naa wax tur woykat bi waaw xale bu jigéen bi bëgg a dem papaam ne ko bul bouger bul génn kër gi xale bi xaru dem naan ay affaire daal di dee allahu akbar léegi nag gam-gam le leen bu fekkee dina dagan ñii di bëgg ay nit di xaru ñii di bëgg ay jigéen jigéen jigéen bu bëgg góor rek xaru ah diw lañ may may kenn du ko may kon ma xaru daal di taal boppam taal sotti boppam essence taal boppam ñenn ñi naan ay comprimé ñenn ñi jaral leen jóge ci ay étage di cëppeelu kon ñi bëgg yàlla nag laa ilaha illallah ñi bëgg yàlla nag mbokk yi ñi bëgg yàlla est-ce que réellement ñun bëgg nañ yàlla loolu mooy wax bi ah xool leen saxaaba yi bu ñu bëggee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg bi ñu bëgg yàlla daf leen jural ñu bëgg yonent ba ñu bëggee yonent amatul lu ñuy desal moo tax saxaaba bi ñëw ci yonent bi ne ko yaa ma gënal ñëpp sama bopp sax yaa ma leen gënal yaa ma ko gënal yaa ma gënal sama waa kër mënumaa toog une minute te gisuma la loolu mooy bëgg soo xamee yàlla loolu la lay jural mbokk yi waaye du yem ci loolu du yem ci bëgg yàlla kese kese xam ko def ay santaaneem bàyyi ay tereem mais loolu tawfiq la tawfiq bu yàlla di defal jaam la mu def li yàlla bëgg mu bàyyi li mu tere maanaa aaya bi muy siraata alladina an'amta alayhim mu ne lamma saala almumin bi nga xamante ne jullit bi ñaan na yàlla tabaraka wa taala ñaan gi mu ñaan yàlla dafa ñaanaale wali ixwaanihi mu ñaanaale ay mbokkam alhidaaya ila siraatil mustaqim te wa kaana siraatu mujmalan bayyanahu bi qawlihi siraata alladina an'amta alayhim wa huwa almanhaj alqawim almuqtada bilabd ila ridwani allahi taala waljanna wa huwa alislaam alqaimi ala aliman walamali walilmi walamali ma ijtinabi shirki walmaasi bi nga xamante ne jullit bi ñaan na yàlla yoon wu baax wi yemaleeku ko ci boppam moo tax ab jullit gis nga lépp dafa war a dafa war a boole ay mbokkam loo am rek bokkal ak say mbokk ba ci ngay ñaan waxoo yow yàlla jubal ma man kenn xott ma man kenn rek rek de da nga ne lan ihdi naa da ngaa ñaanal ñëpp ñëpp ñëpp nga ñaanal ndeysaan yaay Aïcha dafa ñaanoon yonent bi saa salaam mu ne yonent ñaanal yàlla yàlla dugal ma aljanna yaay Aïcha yonent bi daal di yëkkati ay loxoom daal di ne yàlla yàlla nga dugal Aïcha aljanna yaay Aïcha daal di toog jooy bu sukk ci kanam yonent bi ndax yonent bi ñaanal na ko aljanna mu ne ko Aïcha looy jooy lan la mu ne dama kontaan ci ñaan bi nga ma ñaanal mu ne ma wallahi ñaan bi ma la ñaanal moom laay ñaanal xeet bi guddi ak bëccëg te pourtant xeet bi sàkkuwuñ ko ci yonent bi mais yonent bi di ko def naan yàlla yàlla nga jubal xeet bi pour ñu dugg aljanna te sàkk est-ce que ñun ñoo ko demandé ñoo ko yonent bi ñaanal ñu wala ya Aïcha nag daf ko wax yonent bi mu ne ko wallahi sama xeet wi guddi ak bëccëg ñaan bii ma la ñaanal Aïcha moom laa leen di ñaanal sallallahu alayhi wa sallam yonent bi xam nga luy luy problème am mooy xeetam même buñ ko dekkilee yowmal xeetam xam nga lu muy wax ummati ummati ummati sama xeet yonent bi mooy démocrate bi fii da ngay dégg ñu ne diw moo yor caabi àjjana kon su dee ko waa këram rek ñuy dugg waaw yonent bi nag bu fekkee ñooñu ñooñu dong ñooy nar a dugg ko àjjana day dina tuuti diw caabi àjjana ci loxoom la nekk waa këram ñëpp dañuy dugg déet caabi àjjana yonent bi wax nañu yàlla wax nañu kan moo ko yoree yonent bi wax na ko ci hadis ridwaan wax na ko ah yonent bi mooy njëkk a dekki moo ñëw fëgg buntu aljanna kii garde ne ko kokkan la mu ne ko muhammad mu ne ko yow lañ ma wax naa la ubbil balaa may ubbil kenn sallallahu alayhi wa sallam xoolal yonent bi waxul ana ali waxul ana useynu waxul ana asan waxul ana fatima waxul ana roqaya waxul ana zeynab waxul ana ibrahim lan la wax ayna ummati ana sama xeet sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar ana sama xeet ana sama xeet xeetam mooy moom mooy problème am moom moom xeetam dañ dugg aljanna moom mooy problème moo tax mu ne kullu ummati yadxuluna aljanna illa man aba wa qila man yaba ya rasul allah qala man atani daxala aljanna wa man asani faqad aba yonent bi nee na xeet wi yëpp danañ dugg àjjana ba mu des ku bañ ndeke ku duggul àjjana ku duggul àjjana yow yaa bañ a dugg àjjana saxaaba yi dañu waaru ñu ne yonent ndax nit dina bañ a dugg aljanna mu ne waaw waaw ñu ne loolu nu muy nekkee mu ne man ataani damir bi fan la dellu ci yonent bi ku ma topp man ataani man yonent ku ma topp ñu ne ah mu ne daxalal janna lii rek doyoon nañu topp yonent bi lii rek ñu ne waaw mu ne wa man asaani ku ma bañ a topp nag yow yaa bañ a dugg àjjana leer na de kan moo bëgg dugg àjjana yoon bi benn dong la mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amul beneen yoon jàngeen ci alquran ay nit di màtt seeni loxo yowma alqiyam yowma yauddu zalimu ala maza ndeysaan bis bu doomu aadama di màtt loxoom est ce que nit mun na màtt loxo baaraam mun nga ko màtt ñaari baaraam ñett sax mais loxo bi yëpp ñaari loxo bokk ah ci ñenn ñi imaginel ñaari loxo nga bu ko maat lan la waa ji wécc lu muy wax yaa laytani ittaxastu maa rasuli ekat nekkoon ma jaar ci yoonu yonent bi yemu ci de mu ne yaa waylata wooy man wooy laytani lam attaxis alquran dafa garaaw xoola baatu fulaan la indi mu ne diw diw man huwa diw soo demee États-Unis diw mu nga fa bu tere nit ñi dugg àjjana boo ñëwee Sénégal am na ku fa tudd diw ku tere nit ñi dugg aljanna boo demee Mauritanie am na ku fa tudd diw xam nga yàlla bu ne woon bombarle ñu naa kon Amérique la woon wax na ko leer na yàlla dafa ne diw foo dem am na diw foo dem am na ku tudd fulaan fulaan mooy diw ɗum mbiyetoon kaari kaari diw làkk bu nekk am na ko wonaa kaari mooy diw ci arab fulaan français quelqu'un un tel ci anglais ci làkk yëpp am na ko mooy lan fulaan foo dem ki tere nit ñi dugg àjjana mooy fulaan fulaan moo tere nit ñi dugg àjjana fulaan moomu nag parce que lu tax du ñu benn am na ñoo xam ne fulaan ci football moo leen tere dugg àjjana am na ñoo xam ne fulaan mbër am na ñoo xam ne fulaan rappeur am na ñoo xam ne fulaan fulaan cheikh am ñoo xam ne fulaan fecckat am na ñoo xam ne foo dem am na benn fulaan ah fulaan rappeur puisque ci biir ci biir xeet wi ku nekk am nga ku la tere dugg aljanna kooku mooy fulaan ci yow moo tax yonent bi yàlla tabaraka wa taala wax ko ne yowmal xiyam nit dina matt ñaari loxoom nekk ak a neexoon mu bañ a topp diw ndax diw moo ma bañ a dugal aljanna mbokk yi kon jullit bi ñaan na tabaraka wa taala borom bi ñaanaa leel ay mbokkam définir yoon wi ba mu leer ci wax ji mu wax ne siraata lazina yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewalal nga leen huwa al manhaj al qawim te mooy yoon wu jub wu dëkk wi yoon wii yoon woowu gaa yi jaaroon mbokk yi ana ban yoon moo gën a moo gën a baax yoon yoon ci yàlla muhammad képp ku fi indi beneen yoon wala képp ku fi indi dara nga yaakaar ne loolu moo gën a baax li fi yonent yàlla muhammad indi woon yow alku nga li fi gën a baax mooy li fi yonent yàlla muhammad indi amul lu gën a gaaw luy dugal nit aljanna amul lu gën a baax luy lu gën a gaaw luy baax loo nit amul lu gën a baax luy jubal nit amul lu gën a baax luy baaxal nit lu dul yoon wi fi yonent yàlla Muhammad indi woon te moo gën a yomb ndax lan yonent bi nee na amul lu leen yàlla digal lu dul tànnal naa leen la ca gën a yomb te islam dafa yomb yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra alquran dafa yomb islam dafa yomb yonent bi sax su yónni woon sahaaba yi danaan leen innama bu'istum yenn saa yi mu ne leen yassiru wala tu'assiru kon dafa yomb kon ku fi jàpp ne li garaaw mooy gars yi jàpp ne islam dafa metti kon yonent yàlla Muhammad li mu dafa metti léegi nag am na ñoo xam ne kon yàlla yónni wala ñoom ñu indi lu yomb loo xam ne bu ci nit ñi jaaree du gaañu la lool ay fo caaxaan kese la yàlla yónniwul kenn léeg-léeg ma wax ne sunu papa yi ak sunu maam yi doyu ñu yàlla yàlla wóoluwu leen d'accord ngeen ci loolu sunu papa yi doyu ñu yàlla sunu maam yi doyu ñu yàlla sunu mamaat yi doyu ñu yàlla sunu mamaati mamaat yi doyu ñu yàlla xam ngeen kan moo doy yàlla mooy Muhammad moom moo ko doy ne ko maa la yónni ci xeet wi muhammad lu mu ci teg rasulullah yasin wal quranil karim lu mu ci teg innaka la minal mursalin jeex na nee na ko yow yaa ma doy yow muhammad yow dong yaa ma doy keneen doyuma samba de doyuma demba doyuma moodu doyuma kenn doyuma yow yaa ma doy yónni naa la ba pare ku la topp nag texe ku la topp rek raw wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima fawzan azima ku topp yàlla ak yonentam yàlla nee na yow texe nga texe gi gën a dëggu gi gën a baax ci texe yi loolu doy na mbokk yi ba jullit bi laajee loolu yàlla yoon woowu nga xam ne day tax jaam bi daal di am ngërëmal yàlla loolu rek war naa tax ñu góorgóorlu pour ñu am ngërëmal yàlla pour ñu am kontaante yàlla tabaraka wa taala jullit ci kaw suuf amul lu mu war a def rek lu dul mu am kontaante yàlla boo lekkul du problème soo naanul du problème boo wérul du problème lu la mënta dal du problème wante yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na jullit bi gën a texee di ci jullit yi gën a sonn gën a ñàkk suñ ko jëloon seconde capp ko ci aljanna capp xam ngeen capp lan mooy capp mooy dugal génne ñu ne ko ndax mus ngaa am problème àdduna day waat ci màggaayu yàlla ne mosumaa gis problème waaye ki noos ci àdduna dëkk ci ay garat sel di naaw ci ay booyin nga xam ne mus am na ñoo xam ne mosuñu gis suuf ndax xéewal mosuñu gis suuf ah allahu akbar am na ñoo xam ne musuñu sol benn mbubu solaat ko ndax xéewal gu ñu am benn mbubu benn yoon lañ koy sol dàll benn yoon lañ koy sol kudd benn yoon lañ ciy lekk palaat benn yoon lañ ciy lekk ndax am gu ñu am waaye musuñu jaamu yàlla ñooñu bu ñu jëloon capp leen safara génne leen ne leen ndax mus ngeen noos lu ñuy wax dañuy waat ci màggaayu yàlla ne musuñoo noos dañoo dañoo bew yàlla yàlla musal kon ci bew mbokk yi kon mu ne wal janna aljanna jooju ñuy wax wa huwa al islam moom mooy islam aljanna marchandise la bu yàlla di jaay aljanna yombul de gis nga comme ni ko wax Sénégal yombalee nii Sénégal jàpp nañ ne ku nekk mën ngaa nekk ci lu la neex ci fuural xumbal simb bëree rab bu la neexee sax nga bu ñuy julli defal lu la neex boo dee rek am na benn waaye bu toog foofu da ngay ñëw rek mu ne yàlla mu ne yàlla mu ne ko la bayk mu ne ko ñoom diw ñëw nañ ana caabi ji mu ne mu ngi ne ñu daal di dugg yenn saa sa nga ku ne ñii moom ñii ëllëg insha allah seen lépp baax na maa ko yore yenn saa nga dégg ku wax loolu yenn saa nga dégg fii ne ku fii ku fi teew dugg nga àjjana rek gaa yi yóbbu loolu yomb na de ku teew fi rek dugg na àjjana des àjjana du noonu àjjana àjjana nekkul ci loxo kenn ci loxo yàlla la nekk te yàlla moo ko wax ci alquran mu ne inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yàlla ne àjjana dama koy jaay léegi nag ñu taxaw foofu tuuti seetlu àjjana dañ koy jaay lu ñuy jaay pour nit ñëw waxaale ko lan lay yor il faut suñuy jaay mbir il faut mu am kuy jënd alaysa kazalik kooku di jënd il faut mu am ah kooku di jënd il faut mu am xaalis loolu ñuy jaay il faut mu am prix alaysa kazalik aljanna kon xam nañ kan moo koy jaay kan la yàlla day jaay moo koy jaay lan lay jaay aljanna lay jaay kan la koy jaay kii jaay foog mu am ku muy jaay booy lal fi suba ba ngoon amoo ñooy jaay kan mooy jaay yor marchandise moo xam da ngay dem foo xam ne kenn du ko jënd yàlla mooy jaay kon am nañ jaaykat am nañ marchandise kon kuy jënd moo des ñan ñooy jënd jullit yi yàlla moo leen koy jaay lan la leen koy jaayee lan mooy prix bi prix aljanna lan la anfusahum wa amwalahum seen bakkan yi ak seen alal yàlla neen loolu laa soxla bakkan yi ak alal xoola ñaari yi nu mu grawee bakkan mooy nga tuur sa deret ci yoonu yàlla ak sa alal gars yi dañuy wax ne poche boo gis guus la nekk xool leen poche yi poche boo gis guus la nekk ci kaw ci xol bi boo nee nii rek nga daj mu ne këng këng këng même bu dee kuy yelwaan la boo nee nii xol bi ne la seetal yi moytul yi nga puus ko mu ne la moytul yu weex yi nga puus mu ne la moytul yu xonq yu mag yi seetal yu ndaw yi gis nga loxo bi dafay yàgg naan nii àgg fa naan nii rek mu ngi puus affaire yi xol bi moo koy wax puus loolu dafa dafa commerce dafa dafa yéeg direct xol bi rek day yéeg dem ci xel mi ah nga gis waa yaa ngi dugal mi ngi wax ak yow waaw yow dama laa gëj a gis sax mais xoolal waxul loolu de day saale day puus affaire yi ba mu daj bu ndaw bu xonq mu ne ko nii ñaar dërëm wala dërëm ngir yàlla nga joxe ñaar dërëm dërëm ngir yàlla ngir yàlla ñaar dërëm ak dërëm lu mu mënal nit wax leen ñaar dërëm dërëm lu mu mënal nit ngir yàlla lañ la wax de ngir yàlla ngir yàlla waaw encore ngir yàlla la la waa ji wax waaye ña la ngir yàlla allahu akbar jàng ngeen ci alquran yàlla mu ne wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi ragal leen yàlla mi nga xam ne moo tax ngeen di laajante kon buñ la nee ngir yàlla loo war a yëg moo tax gis nga ñi xam fële waa ji day yor day yor de seen kenn di dem mu daw di ko dabi pour jox ko parce que xam na moom li muy joxe lan la mais ñun ñi nga xam ne xamuñu ku fi sara ku fi xëy ku fi xëy saraxe téeméer sax sure tey damaa def erreur bu rëy damaa jaawale 250 bi ak 500 bi jox ko waa ji xam nga loolu nekkatul sarax tey erreur bu rëy laa def aw ma weccit dama ko jox téeméer quoi aw ma weccit inna lillahi wa inna kon ku fi saraxe 1000 francs foo jëm xanaa kon mooy yow juróom fukki fan da ngay toog di jooy rek dal nañ yàlla jubal mbokk yi aljanna du lu ndaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ala inna silata allahi gaaliya ala inna silata allahi yel janna marchandise su yàlla dafa seer marchandise su yàlla dafa seer ñu ne yonent marchandise su yàlla lan la mu ne mooy aljanna ku yaakaar ne da ngay tëdd di nelaw am aljanna da ngay nax sa bopp ku yaakaar ne yàlla mii doo ko jaamu am aljanna da ngay nax sa bopp aljanna ku fa bëgg a dugg foog nga def lu lu lu kenn deful yonent bi saa salaam ne yàlla jéggal ay bàkkaaram wala wala yàlla wax ko ne baal naa la te terewul mu taxaw di jaamu yàlla ba tànk yi miiti Aboubacar yonent bi wax ko ne da nga dugg àjjana est-ce que dafa dem tëddi tey ñun yàlla nañ sant yàlla wallahi ñun buñ fekk woon jamono yooyu ñu ne la eh eh yow di nga dugg àjjana da ngay ñëw daaj daaj daal di dem ci menuisier bi wala bu fekkee tëgg ñiy defar tëgg am nañ urus xaalis bëri danga naan ko defal ma benn piliano or bu ngand wala benn piliano xaalis bu fekkee sa moyen ci bant jibuti yi lay nga ñëw defal ma ko benn piliano jibuti bu rafet nga ñëw def ci benn mat la bu nooy tëdd waaw te doo tëdd sa biir kër ne biir néeg da nga ñëw ba ci public bi nga tëdd ñu ne leen nga ne ana min ahlil janna man ci waa àjjana laa bokk dugg naa ba pare il faut ma ñëw won ko nit ñi Aboubacar yonent bi ne ko da ngay dugg àjjana mu ne sama benn tànk bu duggee beneen bi duggagul wóolooguma Umar ñu ne ko da ngay dugg àjjana mu ne bu ma déggoon benn baat di woote kaw asamaan naan yéen ñëpp di ngeen dugg àjjana ba mu des kenn mu ne dinaa tiit dafa ne ndax du ma waajooju te yonent bi moo leen ko wax de koo xam ne du wax lu ko neex moo leen ne jàkk ne diw mu ne ah bañ mat fukk da ngay dugg àjjana da ngay dugg àjjana da ngay dugg àjjana te terewul ñoom caaxaanuñ de ñu taxaw di jaamu ñun kenn waxuñu ko la hawla wala quwwata illa pour waxuma la waxuma la ñu naafila guddi bi mais pour ñu ñëw fajar jàkka sax problème la jàkka boo dem fajar ci Sénégal jàkka bi du fees jàkka joo dem fajar ci Sénégal laa wax jàkka bi du fees léegi ñetti rakk ngeen di am ñetti sàpp waaw ñetti sàpp jàkk boo dem ci Sénégal laa wax de Sénégal laa wax jàkk bu ngeen dem du fees fajar kon ça veut dire que ana jullit yi semaine bi passé benn mosquée bu ma doon def waxtaan waa ji mu ne ma dimanche matin jàkk bi kenn du jàkk baa ngi nekk ci biir Dakar semaine bi passé dama ko doon def waxtaan waa ji ne ma jàkk ji dimanche kenn du fi julli ndax dimanche gars yi dañuy grasse matinée dimanche kenn du ñëw ah fajar kenn du ñëw dimanche parce que ñëpp a ngi nelaw ah ndeysaan gen waa génnal allahu akbar gis ngeen allahu akbar loolu bëreetul ci Sénégal de jàkk buy fees fajar del allahu akbar loolu loolu taxawaayu jullit yi la de mbokk yi jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu daan mel juma noonu lay mel tabaski noonu lay mel korite noonu lay mel tisbaar takkusaan timis gee mais xoolal suñu jàkk yi nu muy feesee jour vendredi day fees dell ba ñu baare tali bi alayhi salaam ñu baare yenn tali oto yi duñ jaar mais bu fajar jotee est-ce que mos ngeen gis jàkk ju fees fajar ba ñu baare oto yi ci Sénégal bi ngeen juddoo ak léegi at yi yàggagul kenn ku nekk bàyyil xel ci loolu ma ni ndax mës ngeen gis fajar jàkka ju fees ba ñu baale tali bi.
bu ñuy bu ñuy def fi mondial Sénégal ak
loolu mondial moo taxoon baba loolu mondial moo taxoon allahu akbar yàlla na yàlla jubal mbokk yi aljanna jooju war nañu jaral lu ne il faut ñu fay prix bu cher pour ñu dugg aljanna mënuñu mënuñu buuxanteeg ñoom Bilal ñoom Ammar ñoom Musab ñoom Yaasir ñoom Sumayya mënuñu buuxanteeg ñoom bunti aljanna parce que ñoom dañoo joxe seen prix bu cher lañ fay bi yàlla ne day jaay aljanna ñoom dañoo joxe prix dañoo ñëw fay lu cher dañoo joxe seen deret joxe seen alal joxe seen lépp saxaaba yi dañoo joxe joxe joxe ba am na ci ñoo xam ne bi ñu amul lu ñu joxe dañoo joxe seen rongoñ jàng ngeen ko ci alxuraan bañ ñu ne yonent bi dañuy ànd ak yow xeex yi yonent bi ne man awma fas yu ma leen yem yàlla mu ne lan ah yàlla mu ne tawalla wa ayunuhum tafiidu min ad-dam'i dañoo joxe ginnaaw seen bët yaa ngay sottee ko rongoñ ñoo ngi koy joxe ci xoolal rongoñ moo gën a tuuti ci li nit am saxaaba yi joxe nañ ko moo gën a tuuti saxaaba yi joxe nañ ko ñun nag waxuma rongoñ la hawla wala quwwata illa billah dafa guñ dara de fi mu nekk ñi am na ci ñun ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom àjjana première place la ñuy léegi am na ci ñun ñu jàpp loolu ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ne dugg nañ ba pare àjjana du loolu àjjana du lu ndaw àjjana ku fa bëgg a dugg lu rëy ngay def saxaaba yi dañoo def lu rëy lu rëy lañ def dafa ñu lu ndaw xoolal saxaratu firawn lan lañ joxe julliwuñ de wooruñ joxewuñ azaka demuñu màkk waaye dañoo joxe seen deret xëy nañ di bokkaale ci suba 8 heures 10 heures fekk leen biir aljana ñu toog di ndékki wala keroog ba leen firawna nee dinaa leen rey dinaa leen christifié dinaa dagg seen loxo ndeyjoor tànk càmmoñ naa leen yeew ba dugal leen ci biir tàndarma yi wala usallibannakum fii borom xam-xam yi doon fii dañ ne fii li muy tekk mooy danaa leen yeew ba mel ne ku leen di dugal ci biir ndax yeew bu dëgër gars yi dañ ko ne defal lu la neex àdduna dong nga mën alaxira ñu nag yow ñoo fa def dara nga mënul faqdi ma anta qaad innama taqdi hazihi lhayaat dunia àdduna rek nga mën a alaxira ñu nag yow ñoo fa yam doo fa dara allahu akbar loolu mooy iman mu jàpp leen rey leen ñu dugg àjjana gis nga léegi àjjana boo fa bëgg a dugg foog nga nangu def dara yàlla moo la ko wax nag kon te àjjana jooju moom mooy lislaam lislaam boobu mooy nga taxaw ci ngëm yàlla mooy nga taxaw ci xam-xam mooy nga taxaw ci jëfe ñett il faut nga nangu am ngëm yonent yàlla muhammad alayhi salaatu salaam bi mu ñuy firil iman mooy lan bi mu ne ngëm ci xol lay nekk après lu mu wax cër yi ñoo koy jëfe cër yi ñoo koy jëfe islaam juróomi mbir la iman juróom benn mbir ihsaan benn mbir iman lépp xol bi moo koy liggéeyal yàlla juróom benn yépp ci xol bi lay nekk iman yépp kon liir leen ko al imaanu billah fan la al imaanu bil malaayika fan la al imaanu bil kutub fan la al imaanu bil rusul fan la al imaanu bil qadar fan la yépp xol moo koy def ngëm yàlla lépp boo ko boolee ci xol lay nekk islaam nag cër yi ñoo koy defal yàlla cër yi iman xol islaam cër shahadatu an la ilaha illa muhammad rasulullah est ce que nit mën na ko def te làmmiñam waxu ko hmm? shahadatu an la ilaha kon cër yi la iqaami sala lan moo koy def mës ngeen gis ku ne maa ngi julli rek tëdd ñu ne lan mu ne maa ngi ci iqaami sala kon sax gis nga wax nga ko cër yi ñoo koy liggéeyal yàlla itaay zaka lan moo koy def sawm ramadan lan moo koy def hajj lan moo koy def kon islam cër yi ñoo koy liggéeyal yàlla iman xol bi la moo tax yàlla mu ne rabbukum a'lam bima fi nufusikum su nit gëmee nag lan mooy wane ne gëm na mooy cër yi ñoo koy jëfee cër yi léegi nag mu ñëw ci islam am na iman islam bi doog a ñëw arab yi bu ñu ñëwee ci yàlla ne gëm nañ qaalatil arabu amanna lu leen yàlla wax gëmu leen du dëgg qul lam tu'minu du dëgg ndax ku am iman rek moo tax gis nga da ngay gis bi benn waaye mu ne xoola takku xoola takku xoola takku de xoola takku yi ñuy def yëpp amul njëriñ julli taxuta dugg kenn yenn saa nga dégg ko fi julli taxuta kenn dugg àjjana nit dina julli ba sonn yàlla yóbbu ko safara ay feni kese la te ki leen ne xoola takku kenn ju nekk añ bi mu ne xoola takku waa ji naan la xol rek moo wóor xol na sa xol set bu ñu yekkee añ bi doo xol na set suñ ko ne kaay añ du wax non sama xol mi ngi foofu kan ngeen mës a gis fii kaay añ mu ne sama xol a ngi ceetu bool bi toog mës ngeen ko gis benn kaay añ mu ne sama xol non xol rek am solo xol baa ngi ceetu bool bi mu ngi doon toog baa ngi koy séen donc kay day raxasu ñëw di ñaak te ñaak sax du doy di tibb sax di teg sa doq du doy boo tegee sa doq da ngay yëg ne tàng na mais doo yëg ne saf na il faut nga dugal bii di wan nu muy dem il faut amal kon il faut ñu bàyyi xel ne iman amal moo ciy topp jëfe waaw mu nga su ko defee jullit bi yooyu muy def noonu da ko ciy boole ma al ijtinaabi shirk mu mooy tundiku bokkaale bokk na ci nag ci la la lay dimbali ci ngëm gi mooy nga am xam-xam al ilm téere bi ustaas di jàngale lan la njëkk a wax ah lan la la jàngal i'lam annahu yajibu alayna ok ustaas gars yi mokk lu taalam lundi suba la révision atal darse bi mokk lu arb ah arba masail al ula la ilaha illallah al ilm gis nga wawa maarifatullah al ilm xam-xam gis nga jullit munoo jaamu yàlla te xamu wala fii dañu ne nekk taxankatu guddi wóorul mooy di lambar lambari nii rek kaay julli nga naan la taxaw suuru ko sujjóot asalaamaaleykum kii am na ñoo xam ne allah wa yàlla xam nga ma xam naa la incha allah loolu wóorul de da ngay xam imam Bukhari ubbi na ci bunt baabun al ilmu qabla al qawli wal amal bunt xam-xam balaa wax ak jëf da ngay am xam-xam am xam-xam même laxdari loolu la jàngale awalu ma yajibu ala al mukallaf tasiw imaani summa lan mooy maarifa mooy ilm nga am xam-xam looy jaamoo yàlla tabaraka wa taala nooy jullee nooy wooree nooy defee sa jaamu yàlla tabaraka wa taala mais taxankati guddi jànguma jànguma rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla xam na te fii ku jàngul rek yow la dinaa faral di wax ne tey bu ñu yónnee kenn ci ñun portable bu bees tàq trois jours boo ñëwaatee ci waa ji nga gis mu xam portable bi lépp mun ko manipuler te jàngul français jàngul anglais jàngul arabe mais pourtant portable français la mais lépp la waa ji di mat ka ko defaroon sax waaye yenn saa yi waa ji génn ci lu mu xamul ah lu tax ah léeg-léeg ma wax sama waa kër léeg-léeg ma toog nii rek xool sama yaay bi càgg rek muy nettali fi film yi xam ngeen film yi yu am ci télé bi di ko nettali mel ni ku dégg tubaab diw mu ñuy daf ko wax lii kii ma ne ko waaw yow da nga dégg tubaab mu ne noonu damaa xool ci image yi rek ma ne ko ah boo dafa boo defoon nii léegi nga wàcc alxuraan ngay gis maire boo xam ne déggul tubaab mais film yëpp la comprendre xam na gars yi xam na ñëpp Sénégal société bi loolu la xamuñu dégg mais ki la fi gën a ñàkk a dégg tubaab moo la gën a comprendre film yi lu tax l'islam bi noonu du- duñ ko def loolu parce que kenn ci ñun kenn ci ñun affaire bi ñoru ko mbokk yi hidayatul ayat aaya bi luñ ciy jëlee bu njëkk mooy al itiraaf bin niam mooy ñu reconnaître xéewal yi ñu yàlla defal xéewal yi ñu yàlla defal yàlla def ñoo defal xéewal xéewal gi ci njëkk a rëy mooy xéewalu lislaam ñu nekk jullit ana kan ci ñun bi muy juddu moo def demande bind yàlla lettre ne ko def ma jullit nekk ci loxo loolu dayul mu ne ko boole ma ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nekk ngën gi xeet xayru nnaas kuntum xayra umma uxrijat linnaas kuntum xayra umma yàlla boole laa ngën gi yonent jox la ngën gi dëkk jox la ngën gi téere jox la ngën gi bis jox la ngën gi guddi jox la bu mujj bi ngën gi weer yonent yàlla Muhammad mooy ngën gi yonent weeru koor mooy ngën gi weer leelatul qadr mooy ngën gi guddi yowmul jumaa mooy màkk mooy lu fi desati yëpp yàlla booye la ci ban demande nga def bu neexoon yàlla bi mu lay bind mu bañ la def nit bu neexoon yàlla bi muy bind bi mu ñuy bind mu def ñu ay mbaam sëf heure bi ñu ñuy teg ay saako wala mu def ñu wala mu def ñu wala wala neexuloon yàlla su neexoon yàlla mu def ñu lu kenn xamul waaye yàlla def ñu ay nit ñu war a sant yàlla ay nit lañ yàlla bu mu ñu defee nit mu def ñu ay julit ñu war a sant yàlla lool bi mu ñu defee ay julit yàlla def ñu xoolal julit ñi ni ñuy sànq wala li xoolal ñi lu tax yéen demu leen fee tey lu tax demu leen ca stade dégg ngeen da ngeen yuuxi lu tax demu leen foofu supporté yi yàlla moo leen ko dimbali yàlla moo leen dimbali de am na ñoo xam ne sax doon nañ dem démb wa kazalika kuntum min qablu am na ñoo xam ne ci ñun ñoo doon ñoo doon yo- ñoo doon ñoo doon ñoo doon yore yore ndënd yi yàlla nee na ma génne leen ci am nañ sant yàlla moo tax xéewal gu rëy jullit am na xéewal yu dul jeex yee sax yee sax yu tuuti la waaye xoolal rek suñu yaram yi bët ah yow nawetaan nga 5 ans da ngeen oustaz nee na nawetaan na 5 ans xéewal la tey mu ngi nii toog léegi dootul nawetaan loolu du xéewal yàlla génne ko ci ak ñeneen ak ñeneen ah ku nekk tey mën ngaa wax ne man defoon naa nangam man defoon naa nangam ñun ñoo loolu yëpp yàlla génne ñu ci tey ñu ngi nii toog di sant yàlla tabaraka wa taala soo rombee ñii da nga leen di yërëm soo rombee ñu mel ni ñoom da nga leen di yërëm fi mu nekk nii ba àddina bi di jeex soo rombee kuy yàq waxtu yi kuy foye dundam ku dul jaamu yàlla ndeysaan da nga koy yërëm ak kum mën a doon xoolal bokk na ci xéw li ñu yàlla defal xoolal bët soo xooloon ba ngoon ngay tëdd ñu indi facture bi ne la bis malaaka bi daal ne la koŋ-koŋ nga ne diw nga ne ah mu ne li nga yendoo xool tey da ngay fay balaa ngay nelaw man problème nga dem nga fay facture boobu bëgg a tëdd ki yor nopp yi ñëw ne la ni ngay yendoo déglu da ngay fay nga fay boobu bëgg a tëdd ki yor ngelaw li ngay nooyi ñëw ne la ah fayagoo di nga fay boobu ki yor gémmi ngi ñëw ne la li nga yendoo wax nga fay boobu ki yor tànk yi ñëw ne la li nga yendoo dox xoole lii yëpp da ngay def booy xool sax booy xool ban problème nga yam ñun ñi di xool ban problème la ñu am dana am problème ci booy xool xamoo sax xool bi fu mu fu mu jógee yow da nga yëg di jàng gis dégg bi ngay dégg ban problème nga ci am ndax dafa laaj nga bës ay bouton nga def ay geste ay grimace pour nga dégg ngelaw li ngay nooyu oxygène bi ndax dafa laaj nga def ay effort pour nga nooy ngay xëcc di di di def effort wax ji ngay wax ndax dafa laaj nga def effort yépp yàlla da koo yombal dara amu ci problème lekk bi sax kazalik naan bi kazalik même dem toilette bi kazalik xéewal la di dem toilette xéewal la xéewal gu réy la boo war a dem toilette mu tëju xam ngeen ban problème laa toogee fii ma toog damaa am liir bu juddu boo xam ne amul fu mu demee du toilette ginnaaw gi dafa fat mu ngi ma bàyyi sama kër dañ ko war a opérer mardi démb la fa ñëw mbuur la jógee xoolal amul ginnaaw day jooy 24 heures sur 24 amul fu mu demee toilette lépp a kole fat est-ce que mos ngeen gis loolu soo ko tiimee rek delloo yàlla dëgg bi xoolal ñun xoolal ñun xéewal boobu xoolal moom dañ ko war a opérer mardi depuis mu judd ah te léegi war na def 3 mois depuis mu judd musul dem àll ba ndax amul fu muy génnee yépp dafa fatt ginnaaw gi te xoolal ñun allahu akbar wa amma bi ni'mati rabbika hadis xéewal yi leen yàlla dafa dee leen ko waxtaan benn waay benn waay boo xam ne musicien la mu tuub mu ne bàyyi na musique ak benn fecckat mu ne bàyyi na fecc allahu akbar gis ngeen ku tuub bàyyi fecc kii tuub bàyyi musique am na ñuy tuub ku tuub bàyyi bëre kii tuub bàyyi kii tuub bàyyi loolu la islam islam dafa bëgg nit ñi di bàyyi caaxaan yi di dellu si ci dëgg keroog gars yi ñoon fi jóge Allemagne lañ lañ wax Allemagne bés bu nekk 14 personnes danañ dugg ci diine 14 personnes danañ dugg ci diine nee na moom mosquée bi mu koñ bi mu dëkk mosquée bi fa nekk am na juróom fukki jàkk koñ bi mu dëkk am na juróom fukki jàkk waxul Allemagne ñëpp de koñ bi mu dëkk la wax am na juróom fukki jàkk bés bu nekk 14 personnes danañ tuub te ñun lu ñu fi mu nekk bu ñu la waxee Allemagne sa xel ci lu muy def xoolal ñoo ñu ngi dem ñun ñu toog fii dana leen yàlla jubal mbokk yi war nañu reconnaître xéewal yi ñu yàlla defal bu baax a baax a baax a baax xéewal bu kenn yaakaar ne xéewal mooy am am am na ñoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu amul xaalis rek soo leen ne gars yi nu mu demee ñu ne non sénégalaisement quoi sénégalaisement koo dégg mu ne sénégalaisement mooy mooy dara baaxul te sénégalais mooy koo xam ne du am ba nga ne ko waaw ah mu ne la waaw waaw day taay moom chaque jour rek mu ngi jooytu man kay man kay man waaw wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yenn saa yi waxal alhamdulilah yonent bi saa sallam daan jékki-jékki mu ne alhamdulilahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat mooy bu affaire yi yombee mu wax loolu soo affaire yi méttee mu ne alhamdulilahi ala kulli xaal wala ñaar yëpp day sant mais sant yi ñoo wuute su méttee day sant mais bu neexee day sant mais ci biir sant gi muy sant di nga xam ne kii mu ngi ci xat-xat mais tey mu ngi ci xéewal tey mais ñun nag ñaar yëpp duñ sant ñaar yëpp kenn du sant wér rek sant la wér yonent bi saa salaam wax na ci xadis ñaari mbir nit ñi dañ koy fawe xamuñu sax valeur am ni'mataani du loolu la wax marbunun fiha kasirun minan nas ñaari mbir nit ñi dañ koy fo xamuñu sax njëriñam asihatu wal faraax wir ak am temps wir wir gu yaram wir yonent bi nee na xamsun qabla xams boole na ci sihatika qabla maradik wir balaa ngay feebar wala fi nee nañ ñi wir xamuñu njëriñam xam nga ñoo ñoo ko xam ñi feebar boo demoon tey hôpital comme xale boobu ma wax nga xam ne bu mu juddoo ba léegi mu sa dem duus ah nga gis koo xam ne mun ta saw pour mu saw am na ñoo xam ne pour ñu saw foog ñu yóbbu leen hôpital ñu saw ba pare ñu doog a dem liggéeyi waat seen liggéey te am nañ lu nekk mais heure bu ci saw jotee foog ñu dem hôpital ñu defal leen ay appareil ba ñu saw ba pare ñu doog a demaat liggéey gisoon naa koo xam ne bi mu gaañoo yàggul mbàq bi fi lekk bi di dem benn mbuus lañ ko fa defal mbuus parce que mbàq bi dafa toj ñu dindi mbàq bi branché ko mbuus te dundaat na ak moom ay atan dundaat na moom ak ay at affaire boobu doog a faatu ci ay immeuble la jógee woon France septième étage mu daanu ci suuf mu yaram bi tas gars yi jaar koy jàpp defaraat ko ba mu normal ñaw fii takk fii kole fii defal ko mbuus mu ñibbisi waa Sénégal mbuus lañ ko defaloon ci biir moo tax du lekk lu diis xoolal ñun bu ñu la indi loon léegi kóon yi nga ni ko diréex xoox bi laa wax ci boppam xoox bi waaw nan yàlla jubal kon foog ñu nangu reconnaître xéewal gi ñu yàlla defal ñaareel mooy talabu xusnul qudwa talabu gis nga aaya bi ñu jàng ñaari mbir yi lañ ciy jëlee mooy reconnaître xéewalu yàlla ak lan ñaareel bi mooy di jéem a sàkku ut royukaay yu baax royukaay bu baax xam nga Sénégal lan mooy problème am tey royukaay yu bon xale yi xam nga ñan la ñuy roy mbëri mbëri ñii rappeurs yi la ñuy roy ñii ministre xoolal jeune u Sénégal ñi am tey 17 ans jëm 40 ans du ñu sol tubéy tubéy yëpp fan lañ koy takk ci xottu taat yi da ngay gis paa koo xam ne mi ngi sikkin nga gis silib bi di génn mu ngi teg centre bi nii te bi tubéy jàng nii moom man ku ma romb ne la yow sa tubéy bi lii pour lan la léegi loolu loolu ban roy loolu lu ñuy kan la ñuy roy foofu loolu lan la loolu est-ce que diine la est-ce que yàlla daf ñu wax ñu roy ay kon kan la ñu yàlla roy loo laqad kaana lakum fii xoola yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xoola alquran lu mu wax waaye gaa yaa ngi ñaan lan sirata allazina anama allahu alayhim min annabiyina wa siddiqin wa sohada kon da ngay ut royukaay yu baax jullit day ut royukaay bu baax da ngay ut modèle koo xam ne boo ko toppandoo baax yàlla tabaraka wa taala dafa wax yonent yàlla muhammad ñii ulaika allazina hada allah wa bi hudahum yàlla dafa won yonent bi ay modèle ne ko ñii laa baaxal soo bëggee baax melal na ñii gaa yu baax yaa ngi nii ulaika alladina hada allah ñii ñooy ñu baax ñi wa fa bi hudaahum iqtadi ci seen mbaax jaaral foofu léegi nag yow nga gis ñi ñëw wan la ñu baax nga bàyyi ñu baax ñi Sénégal est-ce que dañoo ñàkk ñu baax ñuy roy bay roy band yu bon yi xale jigéen yi def dum tey laay déglu rajo ñu ne dafa am lu xew xale jigéen yi léegi dañ koy sol seen ween yi mu ngi tudd lan paccal paccal koo gis ween yi de su ko solee ay cité ngoos la day bolo ba ween yi mel ni luy génn ci biti ñu ne paccal la tudd paccal wallahi tey maa ko dégg la ñu ne loolu lu bees lu ñu indi la léegi moo tax léegi kenn dootul dootul fii jigéen dootul muur fii day bàyyi ween yi muy génn nii gën a rëy gën a ngan rek pour nit ñi di xool léegi ñun fu ñu jëm ñu ne loolu paccal la tudd fee laa ko dégg ci rajo ñun ñu ngi doon jooy leneen léegi nag paccal ñëw na léegi fu ñu jëm moo tax ñun xamagu gis ngeen fii dañuy jékki-jékki rek yàlla yàlla benn ni yàlla defoon xaw mu luut fa lañ jëm te su boobaa bu ñu yaakaar na ñun ñii di tafsir rek di xiyaamul layl dañ ciy génn de déedéet gis ngeen musiba buy wàcc ci dëkk ñii julleeg ñii woor ak ñii joxe azakaak ñii dem màkk ñëpp da leen di laalaale bu leen fàtte dëkk bi yàlla waxoon jibril demal nga alak ko jibril dem del siwaat yàlla mën ne ko lu tax parce que dama faa fekk nit ku baax yàlla ne jibril demal nga njëkke ko demal nga njëkke waa ji jibril ne ko lu tax ne dafa gis ñu may tooñ kanamam soppeekuwul waxul waxu ci de dafa ne ko dafa gis ñu may tooñ te kanamam soppeekuwul ñun ñi ngi gis ñuy tooñ yàlla duñ wax ku nekk rek aleykum anfusakum ma sama bopp kenn du wax loolu musiba la yal nañu yàlla jubal
Oustaz wàllu bari bi ngay wax ni samedi bi paase xam nga déglu nga émission bi wax de Mouhamed nekk gis na la invité boobu sax parce que samedi la ko def mooy samedi waaw samedi bi paase borom xam-xam lañ ko invité mu ne bari dafa dagan bëre dagan na mu ne bëre dagan na dafa wut ak génn dégg ngeen mu ne oxygène samedi bi passé da ngeen oxygène pas samedi 11h ba 1h dañ fay invité ay borom xam-xam waaw mu ne benn borom xam-xam lañ fay invité woon samedi mu ne bëri dara nekku ci dagan na dégg ngeen loolu de Mouhamed mu ne bëri waaw dara nekku ci dagan na
bu am Sénégal su nuyu sax dafa dagan mu ne bi am de Sénégal nii dafa dagan mu ne bëri bi nekk Sénégal dafa dagan waaw dara nekku ci te ko ki ko invité ne ba xam mun na woo borom xam-xam di def débat mu ne waaw nangu na borom xam-xam bu mu woo si biir Sénégal moom pare na pour ñun.
pour def débat ak moom gis ngeen yonent bi doon na wax ne ci foofu innama axaafu aleykum aimmatil mudillin xam ngeen li ma ragal ndeysaan gaa yi ne teg mu ne sahaaba yi xam ngeen li ma ragal sahaaba yi ne teg mu ne aimmatil mudillin ay njiit yuy réeralaate wa ida waqa aleykum sayf lam yurfa ila yawm alqiyama yonent bi nee na bis bu dee jaasi tàmbalee rey tàmbalee ci yéen agressé yonent bi nee na yàlla dootu ko dindi ba yawm alqiyama ay njiit yuy réeralaat ak agression dootu fi jóge ba yawm alqiyama te loolu la ñu am al al aimma al mudillin ay njiit yuy réeralaat bëre waruñu laaj jullit sax mu ci hésité naan dafa dagan bëre bii bu fekkee bëre nii rek simple nii sol yére yu baax def ko nii dara nekk ci waaye bu Sénégal bi ci lu ñuy sol ak melokaan bi ak sirk yi waxuma la bëre dafa haram mais seetaan bëre ci télé dafa haram xam nga ñun dañ koy def dangay toog sa saal di seetaan bëre dafa haram yonente bi nee na laana allahu nazira wal manzuru ilay yal na yàlla sori yërmande ki ñuy xool awraam ak kii xool awra waaj est-ce que kenn mën a seetaan bëri te xoolul awra mbër yonent bi nee na yal na yàlla sori yërmande kii xool awra waa ji ak ki ñuy xool awraam wala loolu du xadis an nazir wal manzur ilay kii xool ak ki ñuy xool yëpp yàlla sori na leen yërmande kan ci yéen mu mën a xool mbër te gisul awraam wax leen ma ko
nee na boobu moom boobu du awra loolu la wax awra raju awra góor fu mu tàmbalee ci lislaam nee na boobu moom si julli mooy jumbax ah nee na moom yoon- yonent bi boobu si si julli rek la wax.
waaw kooku kooku beneen affaire nañu bàyyi loolu ba boobu ba débat boobu jot kooku moom beneen mbir la quoi. kon waxtu wi jot na almuhim ñu xam ne aaya bi ñu doon jàng mooy ihdina siraat allazina anamta alayhim ñu ngi ciy jëlee ñaar mooy dañu war a nangu xéewal yi ñu Yàlla defal ñaar benn ñaareel bi mooy dañu war a ut royukaay bu baax. xee sant xéewal sant yàlla xéewal yi ñu defal ñaareel mooy ñu ut royukaay bu baax royukaay jullit day ut royukaay bu baax kon incha allah lii mooy suñu dars ci tey ci bëri bi royukaay bu baax waaw waaye waxtu bi moo jot de bu ñu ñëwaatee incha allah kon waxtu bi moo jot bu ñu ñëwaatee incha allah oustaz maam nee na ñu taxaw ci royukaay bu baax mooy kan ak nu muy mel incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu
Thank you.